ngeen jot suñu ngeen mën a jot moo leen vidéo mën a xam li nga xam ne mbokki internet Tawfekh Production jaarewaat nañ leen di wax bu leen fàtte bës euh, bës cloche bi abonné ci suñu chaine YouTube bi ngir bokk lépp ànd ak ñoom ci Tawfekh yi mbokk yi beneen actualité de la semaine tey ji ci aljuma ji mu jeex tàkk li nga xam moom moo di. couvre-feu état d'urgence bi euh, ginnaaw bi nga xam ne le président Macky Sall l'avait annoncé ci lors de son dernier conseil des ministres bi amoon fan yële euh, de son conseil des ministres bi amoon le mercredi passé bi maanaam manifestation yi jàllee mu nekk loo xamante ni vraiment ñu bëri rafetlu nañ ko ba tey am na ñoo xamante ne nañ c'est la fête ku lu mel ne les les artistes ñi nga xamante ni ci fête la ñuy yëngu maintenant aussi c'est la fête na signifie pas que on doit quand même yaa ngi dégg relâchement bi warul nekk président wax dëgg yàlla man foo taxul moom du ko attaqué parce que tamit nit ñee ko ñaan ne ko bàyyi ko parce que aussi tamit man dama jàpp ne nit ñi am nañ ci droit parce que bu fekkee da ngay def mbir pour résultat la yaa ngi def état de couvre fa nangam sangam couvre fa bi yëpp amul benn effet bu mu ci def au contraire cas yi a gënoon yoo mais amul importance pour man aussi l'activité doit quand même euh, euh, nu ñu koy ci waxeeti sax dafa war a nekk loo xamante ni warul taxaw activités yi dafa war a continuer di am. nit ñi nekk ci li ñu yëngu xiif dafa metti wax naa ko euh, sànq rek ma ne leen ci émission yi ma ne leen bala ngaa xam ne xiif a metti guddi jot nga xiif nar a fanaanoo xiif nee nañ ku nekk am nga turandoo ba mu des xiif moom kenn tuddee ko doom xiif moo gën a metti feebar am na fu nit ñi toll duñ faaleti feebar xiif bi la ñuy lijjanti donc nit ñi nañu dem liggéey mais cela ne signifie pas que aussi dañu war a def relâchement bàyyeeku nit ñi nañu aussi xam nga feebar bi man dama jàpp ne ñooy lu bëri gis nga président Macky Sall duggul oto boo xente ministre de la santé même chose ñun ñooy dugg ci oto yi ñun ñoo ne ci marché yi Macky Sall doo ko yàgg ba nga gis ko marché bi muy war de kii c'est-à-dire que tey jii ñu ñoo war a jël suñuy responsabilité en tant que parce que les responsabilités sont euh, les responsabilités sont partagées tey jii set dañ ko war a làmboo loolu dañ ko war a làmboo fii ngay gis kuy dox ne fépp loxo bi muy lekk fépp daje ni waaye ku baax maa lay nuyu de maa c'est-à-dire que comportement yoo xam ne c'est c'est pas humain loolu dañ ko war a changer set l'islam moo njëkk bëggulu set yàlla suñu borom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañ koy yàlla fayal bu baax a baax te yokki leeram te musal ko euh, bu daan sax julli da ngay gis day yore socc seetu du tàggoo maanaam parfum yu neexam yooyu macha allah ku tedd ki nga xam ne ni set gi l'islam làmboo ba bañ nañ ko ba ku génn àdduna sax dañ lay sang ba nga set sàngal lu weex tàll lu weex di symboliser également la paix jàmm ak set waaw nit ñi nañu set ngir yàlla amul benn diine bu santaane tilim mais da gis koo xamante ni buy wax ak yow da lay tufli ba nga tooy wala muy géex ci sa kanam wala muy ñann ci sa kanam te si la jàkkaarloo c'est-à-dire que am na comportement yoo xam ne pour man faire bi mu ñëwee dañoo wan nañu lii dañ ko war a bàyyi faire bi dañoo jàngal lu bëri yoo xam ne diine sax dañu ko tere nuyoo loxoog loxoog nangam sàngam yu bëri yoo xam ne bul laal bul jege yooyu yëpp feebar daa ñëw force bàyyi la ko te dañoo war a continuer ci comportement yooyu distanciation sociale nag mënul nekk fii Sénégal dama koy wax te dee te dundu sax lay wax la ca tugal du ci Sénégal ñoom seen espérance de vie seen mode de vie ñoom seen seen cadre de vie dëppoo ak suñ cadre de vie fii moo tax sax boo xool ci organisation mondiale de la santé waxatuñu léegi lu jëm ci yooyu ñoom la ñuy wax mooy affaire lii la ñuy wax euh, nu di tëddi maanaam les couches vulnérables mais également port obligatoire des masques wala boo raxasu bay set mais lu jëm ci distanciation physique mënu am Sénégal fii benn kër ngay dugg fu téeméeri nit bokk benn ceeb nga ne nañ soriante xanaa benn boole bu ñu ci tubbalee ñaar nit mu jeex ñun suñu mode de vie comportement bi ñu dund fii cadre de vie bokkut ak bu Europe donc loolu mun nekk fii moo tax distanciation sociale moom munul nekk mais cela mooy aussi am loo xam ne ñun ñoo ko war a corriger bopp oto yi tàncaloo ba fees dell loolu aussi dañ cee war a jëli matuwaay même bu dul feebar dara nit ñi tàncaloo ci oto mel ni ku yebbi xar sëñ bi loolu dafa day waat dugg ci kaar mu fees dell ba kaar ba weng accident bi amoon dem ci péage bi loolu ko indi lu ah, dul jeex c'est-à-dire il faut qu'on change de comportement il e temps loolu aussi dañ ko war a ko suñu bopp du jug rek ni ñu xëpp état bi am loo xam ne état bi daf ko war am lu ñu warloo ak état bi warloo ko ak suñu réew en tant que patriote pour quand même incarner le patriotisme nañu gën a respecter les mesures waaye nga docteur moo la mën a wax lenn lu jëm ci feebar yi moom docteur rek lañu ci mën a diggu Sénégal nag mooy réew boo xam ne bu football ñëwee nekk 16 millions habitants yëpp ay coach lañ bu feebar ñëwee ñëpp ay médecin lañ ngir yàlla nañ bàyyi li Père Sall bi ngay wax yàlla na def yu fi yàlla nit ñi def fu nit nañu bàyyi yàlla suñu borom muy def la ko la ko soob nit ñi def yu fu nit kii médecin nga bàyyi ko lay médecin waaye bëgg a nekk xam boroom xamam ci lépp moo ñu sonal moo ñu